en 1968. C'est pour cela qu'il avait demandé si on doit lui célébrer un jour en dehors et en existence sa soit de jour où on lui avait nommé comme chef de village de Touba. qui était celui et l'a remis sur le musulé de ce dernier, Serigne Modou Bousso Dieng, l'a magnifié en lui disant tu as satisfait El Hadji Fallou Mais sache tu n'auras aucune difficulté dans ce bas monde et dans l'au-delà. À celle de Serigne Modou Moustapha Mbacké Fallilou, El Hadji Mor des tâches de ce dernier Serigne Modou Bousso Dieng avait aussi confiance en lui jusqu'à lui confier l'argent qui ne venait museler de Serigne Fallou pour qu'il fasse de partage pour les fils de ce dernier. Borom Haïra lui avait aussi confié carnet d'héritage de Serigne Fallou. C'est à ces dernières années qu'il l'a remis de Serigne Abibou Mbacké Fallilou par El Hadji Mor s'occupait des dernières et idées sociales que Serigne Modou donnait. Aussi dirigeant, il était aussi le porte-parole de Ndamal Borom Khaira pendant les cérémonies religieuses. En récompense, Serigne Modou Bousso Dieng lui avait donné en mariage la fille de Serigne Fallou, soxna Ami Cheikh Fallou. Il a Parajemi avec Serigne Modou jusqu'en 2000 où ce dernier a rendu El Hadji avait confié toute sa famille à celle d'El Hadji Fallou. Il s'occupait bien de ses enfants, de sa famille et même toute autre personne en guise de besoin de sa maison était toujours en lieu de satisfaction. De en 1900 Descend en 2019, nous prions que la terre lui soit légère. Ainsi, Sohna, Sohna Awal Ndiaye et Sohna Ami Cheikh Fallou et que Firdausi soit leur demeure éternelle. Prions aussi pour une longue vie à soxna Menlo. Vu les agréés, mesdames et messieurs, l'exparition de mes salutations respectueuses. Merci beaucoup. El Hadj Mor moom sëriñ Fallou moo ngi bàyyeekoo Njàmbur mi ngi gane àdduna ca Kelle ci atum 1927 Maxa Gueye mooy maamam du jur waajuram bu góor bi ñuy wax Modou Gueye Awalay Ndiaye mooy maamam bi jur soxna Aram Njuga Seck mi ñuy waajuram bu jigéen soxna Aram Njuga Seck doonoon jàmbaari sëriñ Fallou nekkoon ca wanagu soxna maam soxna bu awa di ko walal di ko mooñal cere lay ak cere gëm El Hadj Mor di ginnaaw bi ba mu jàngee alxuraan ba pare ci lañ ko yóbbu ca daara Cheikh Mouhamadou faadal mu muritu fa ba gërëm ba am fa ngërëm ginnaaw bi la dem kër Serigne bu Bousso mu ubbi fa boutique di yaxantu ginnaaw bi El Hadj Fall woowaat ko ne ko dama lay jox dëkk bii di Touba mu ni ko dooma garantelee ñett yi ma ko sëriñ Fallou ne ko ñett yan mu ni ko dëkk bii doomi sëriñ Touba moo fi nekk ak ay sëtam ak ay taalibeem boo ma garantelee ne duma ma fi yàqu du ma fi yàqule ma dëkk bi sëriñ Fallou ne ko Mor doo fi yàq doo fi yàqule ba muy ñetti yoon mu delluwaat ne ko Mor def naa la ngay penc te penc lépp a fay jaar te du tere muy penc mi ngi yor mi ngi dëkk bi ci atum 1966 ba 1968 65 ba loolu moo tax mu ni woon ci ginnaawam lu ko waay di defal na doon bis bi ko Serigne Fallou joxoon dëkk bi te muy ñeex fukki fan ak juróom-ñett si weeru baraxlu di bis bii ñuy màggal tey sëriñ Fallou moo ko boole ak sëriñ Modou Moustapha Falilou ginnaaw bi sëriñ Fallou nelawee la ànd ak borom xayra di liggéeyal sëriñ Fallou sëriñ Modou bu sa jàng fonkoon ko lool teg ko fu kawe ndax boole gi ko sëriñ fàll boole ak moom ginnaaw bi boroom xayra yëkkatee raqam ju tedd ja soxna ami Cheikh Mbacke Falilou yokk ko ne ko moo seede si sa liggéey bi nga liggéeyal sëriñ Fallou Mbacké soxna Ami Seex moomu nga xam ne ba mu ganee àdduna sëriñ Fallou dafa waxoon ni gan googu bàq la lu gi mu sax El Hadji Mor Gueye na fi na fi maxa <laughs> daana dimbale itam néew di doole yi ku mu xam ak ku mu xamul te loolu mooy li yàlla santaane kon nag rafet nañu ci moom njort bu baax a baax mi ngi wuy ji boroomam ci atum 2019 di ko ñaanal suuf oyof ci kawam moom ak képp kum fa fekk suñu xol yi da ko seral moo tax ñu koy defal bile way ngir di sant ko tarbiyu mën na ko bëgg sëñ de def na ko liggéey ya def na ko te du xaarit ñu wax ko ko day dal bu dee doxit di ko yeexal ne kuy jëri du mindu wéngalu buy wax comme ku lay wayal nekkoon ci sëñ bi ba mu jox ko Tuubaa gi le nekkoon fa di liggéey bi ba tey ji ñu sant ko suñ maam de daa pare suñu maam ji de daa gore tey jii de moo ayee moo tax faw ñu sant ko suñ maam de yàquwul suñu maam yàqulewul tey jii de moo ayee moo tax faw ñu sant ko alaaji Mor Gueye fu mu masaana toog mi ngi ci wetam li waxtaane ci alaaji Mor Gueye moom lay dëggal alaaji Mor Gueye njàmbur njàmbur cent pour cent alaaji Mor Gueye nekkoon na nit koo xam ni ay jaar-jaaram suñu koy wax toujours mën nañ ci yend du ci fanaan alaaji Mor Gueye moom sëñ Fallou moom soxna Awa Ndiouga Seck soxna Awa Ndiouga Seck maam yaayam Modou Seck la baayam tudd waaye tubaarkàlla daa bokk ci juróom-ñaari penc yi nga xam ni ku ci nekk màggal nga daara bënn nga téen ñoonu tee jàngaane alxuraan diggam ak sëñ Fallou nag lu yàgg la ndaxte soxna Ndumbe Sekk maamam daa jóge Cekkeen dem waragum Njataar ñu dénk ko maam Samba Jóob mi man ci alxuraan moom ci maam Matar Ndumbe ak maam Madu Ndumbe kon àndam ak sëñ lu yàgg la soxna Mbeen Sekk màgg ñu yóbbu ko Ngembe moom fa Busa Jeng Busa Jeng màgg ñu dénk ko sëñ Fallou moom sëñ Modou sa Dieng taaw bi taawu kër baayam kon diggam ak sëñ Fallou yàgg na alaaji Mor Gueye di jëmm joo xam ni day am bañ alaaji Mor Gueye fu mu toll day am bañ ndax day satub xeyal di doomi daara ndax maamam masanti biyoo ak biram biyoo ak mbañ yaasin déggin ko dama ndeel ko ba jëri njaay buñ ñu nguraan dee calaw njaay na lan mbiri màkka maamam moom rek moo am juróom ñaari taaw ku ci nekk sampum pénc daa jóge ngaraaf dem jajji njaay ñu dénk ko koddu njaay moom ci njoogu ñang njoogu ñang maa gën damay ber sama péncum bopp sant njarnam njoogu ñang am fa biraan lu mbaar njoogu ñang samba ñang njoogu ñang birim ba ñang njoogu ñang birim ba ñang bu màggee moo jël xari gi mu bokk ak masiri isa jéey ndey ak baay am ci saali xari ak ma ñang xari ak birima ñang ma ca jom jomi doona ya ak faadaan xari ñang faadaan xari ñang nag bi mu màggee am fa cubba ak penda maane ak awa jëleen awa jëleen moo dem muraan kar seex dee calaw penda moo dem ñekki naan sill cubba moo ñëw bandeñ kon alaaji moor cubba seek tubaarkàlla alaaji moor géey ak alaaji moor cubba seek ñoo bokk lépp di borom bandeñ kon alaaji moor géey day amuk bañ bàyyi alaaji baara bàyyi sëñ fàllu day amuk bañ li ma wax ci jaar jaaram nag su ma koy wax man fu laay fanaan sëñ fàllu nee na ngi sant bu baax sëriñ Abo Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul faadal nga xam ne moo nekk ci boppu kilifteefu kër seex Mouhamadul Fadal di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te may ko ak wér noonu la koy ñaanali mbooleem njabootug Cheikh Mouhamadul Fadal gépp ni mu koy ni ko sëñ bi ñu koy ñaanale sëñ Abo moom lañ koy ñaanale mbooleem njabootug seex Mouhamadul Fadal gi ndax jàpp nañ ci bis bi bis bi it bañ ko commencé sëñ Fallou mi ànd na ak sëñ Seexuna ak mbooleem njaboot gi ñu dem ba ca ki fi nekkal Cheikh Mouhamadul Fadal ne ko bis bi nga xam ne moom lañ daan defal suñu wayjur te am ci ndigalam dikkati na boo nee bàyyi ko dootuñu ko naaneem ndox bu ngeen boo nee ñu amal ko nag fas nañ koo amal mu ne xel xalaatu ko loolu la Serigne Abou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal wax keroog biñ koy wax bis bii nga xam ne moom lañ wooye woon nit ñi bis bi nag. lii sabab si ñu bëri wax nañ ko suñu wayjur moo ko bindoon bàyyi ko fi ay 98 99 yooyu daan bis bii nga xam ne ci la ma Seex Muhammadul Faadal joxe woon dëkk bi su ñëwatee na ngeen ma ci santale yàlla ak Seex Muhammadul Faadal lii mooy sama bis noonu la ko binde woon bis bi nag moom ci boppam def na ko ñaari at muy 98 ak 99 ñaar yëpp Serigne Abo moom Cheikh Mouhamadul Fadal daana ko teewee fii ci kër gi di ko defal ak ngan kon bu ko bindee bàyyi ko fi muy ndigal loo xam ne nii way jur moo ko digal ay doomam du ñu man lu dut di ko jëfe rek euh, ñu ñu ciy sant yàlla nag bu baax di ci sant Cheikh Mouhamadul Fadal di sant ñi nga xam ne itam ñoo ci jàpp ba mu agsi fii mu agsi di ci jiital suñu waay jur wii ci biir nga xam ne sëñ Sidi Gueye la moom lañ fi dese mu jóge ba Sibi Xutaan ñëwu fi ci suba ba tey ak mboolem waa Sibi ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla fay leen yoolob ko dox ak bokk niki noonu itam lañ koy ñaanale njabootug magam Cheikh Fallou Gueye ñu gën koo xam ci Baye Cheikh Gueye njaboot gu góor gi ak gu jigéen gi ca suba ba tey xam nañ ne ñoo bokk yëf yi ñu ànd koog ñun niki noonu itam lañ koy ñaanale njabootug waa kër Serigne Sayar Gueye sëñ Alaaji Fallou Gueye ne ca bopp ak sëñ Xayra Gueye ñoom it ñu ngi ci jotaay bi niki noonu lañ koy ñaanale mbooleem ñi nga xam ne ay rakkam lan soxna bu Gueye mi nga xam ne moom moom ñoo bokk lépp te sëñ Mbay Sall yoroon ko doomam di maam Awa Sall ak mbooleem njaboot ga ak soxna euh, na soxna Nogay Gueye doomam di sëñ Njaga mi ngi ci jotaay bi ak mbooleem soxna bu Gueye ma nga xam ne moo nekkoon Dakar bokk ak moom lépp bokk yëpp daal fu mbokk mën di bàyyi ko ñëpp teewe nañ bis bi ànd koog ñun boole kook def ci seen jëf kon sëñ Fallou lu na mi ngi leen sant ñoom ñëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci koñ bi di ci jiital sëriñ Samat Lo mii nga xam ne xam na ne sëriñ Seex Lo ak alaaji Mor Gueye benn lañ woon ñu woon ñaar kenn lañu woon kër googee ak kër gii benn la moo tax moom it at mu jot ni mu ko daan defee day ubbi këram noonu dalal fa njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal gi nga xam ne moo ñoo teewoon ci bis bi ni ki noonu it soxna yaa caama ñang mii këram noonu la ko ubbee koñ bépp ak kër si ñëpp di sama caam ak mbooleem kër soxna ngoone jaak ak mbooleem ak kër baay mantataal fa lañ doon togge ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoom lañ maase dëkkandool ci koñ bi ndax dëkkandoo àq da caa am yenent bi wax na ci lu bari ba ñu jàpp ne sax bu ñu fi jógee dañoo war a donn kon nii leen taxawee ñoo ngi leen ciy sant yéen mbooleem dëkkandoo yëpp ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy liggéeye fii ci barab bi ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm niki noonu itam noonu la ñuy sante ñi nga xam ne jëruñoo sant sax ndax ñaanal leen mooy sët yi ñi doon amal ñoo xam ne ay jàmbaar lañ ak mboolem ñi nga xam ne suñuy soxna lañ nekk ci kër gi jàpp ci liggéey bi ba desee ñetti ba tey ñi ngi koy daje ci ay kër di waxtaane nu bis bi jàlle rek ci jàmm noonu itam la ñuy sante mbooleem ñi nga xam ne teew nañ ci bis bi mën nañ ne njabootug Cheikh Mouhamadoul Fadal gépp teew nañ ci sëñ Mourtala mu Cheikh Mouhamadul Fadal teew na fi ci suba yàgg fi lool ak Serigne Cheikh Oumy Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal fi lay yendu ba léegi la dem Serigne Abibou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal moom it léegi la la fi jóge soxna maam Bousoom Cheikh Mouhamadul Fadal moom léegi la toogoon fii itam ci baas bi léegi la fi jógee soxna maam Matim sëñ Fallou it ñëw na fi yàgg na fi lool moom it soxna Njaxat Mbacke moom Cheikh Abdoulaye Laat moom borom Touba moom it fi la yendu sëriñ Jili Mbacke itam moom Cheikh Moustapha moom sëriñ Falilou moom fi la yendu sëriñ Abdoul Fatah Mbacke moom El Hadj Baara moom Cheikh moom moom El Hadj Baara sëriñ Fallu fi la yendu sëriñ Cheikh Jooreel Mbacke moom sëñ Cheikh Coro ñoo bokk lépp moom it fi la yendu sëriñ El Hadj Mbacke moom sëriñ Cheikh Coro fi la yendu sëriñ Jili Mbacke moom sëñ seex Coro fi la yendu sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Cheikh Coro moom it fi la yendu sëñ Cheikh Gaawaan moom sëriñ seex Coro fi la yendu moom it sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke moom sëñ Cheikh Gaawaan di magi sëñ Cheikh Thioro moom moom moom moom it léegi la fi jógee fi la yendu teewee na cérémonie beeg waxtaan wi yëpp ba mu jeex andi fay addiyaam moom it ñoo ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko te may ko ak wér. sëriñ Baye Thierno Mbacke moom sëñ Abdou Mbacke moom maam Cheikh Absa moom it fi la yendu sëriñ Galas mbakke moom sëñ Alaaji Baara ñu gën koo xam ci ga sëñ Galas sekk fi la yendu sëriñ Fallou Mbacke moom sëriñ Abo mu mag. fi la yendu sëriñ maam Cheikh Mbackeem sëñ Abo it moom sëñ Fallou fi la yendu sëñ Mouhamadou Lamine Baara moom sëñ Cheikh Gaawaan moom it fi la yendu Baye Galas Mbacke moom seex Abdoul Fatah moom it fi la yendu toogoon na ci tànt bi léegi la fi jógee sëñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Mamour moom Cheikh Mouhamadul Fadal moom it ñëw na fi ci suba daa am ay ngant yu ko dab moo ko tax a yeewee ko soxna maam Awa Mbacke moom seex Moustapha moom sëriñ Falilou ak mboolem turandoo ñoom it léegi ñi ngi toogoon fii léegi lañ fi jógee ak mbool turan daayira turandooy Cheikh Mouhamadul Fadal yi ñoom it ñoom ñëpp fi lañ yendu ak doomi donga yi ak yi doom yi maanaam njabootuk Cheikh Mouhamadul Fadal daal kenn desut ak daayira fulku bi nga xam ne alaaji Mor Gueye ci la bokkoon daayira jumaa ji nga xam ne mooy sëñ Baaba Jéen te ñuy jàng ay xasiida te mu bokkoon ci fi lañ yendoo jàng ay xasiida lim jàng nañ fi lim bu bëri jàng nañ fi tamit 28 kaamil ci suba Euh, jàng euh, sëñ Fallou moom sëñ Maamun it ñëw na fi moom sëñ Maamun moom Cheikh Mouhamadul faadal ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal sëñ Moodu sëñ Cheikhu mi ak Baye Galasum sëñ Cheikhu mi ñoom it fi lañ yendu ak seen way jur sëñ Cheikh Mbacke Lo moom sëñ Cheikh Lo Ngaabu moom it ñëw na fi sëñ Abdou Samad Lo ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax moom it di ko gërëm ndax dafa am boole goo xam ne ni Serigne Fall du ko boole woon sëñ Cheikh Lo ak euh, Alaaji Moor ndax bi mu leen di firil bayit woowu sëñ Tuubaa wax ci wala xadd karam naa wax nañ ne ñoom soriwul dara sëriñ eh, ak bi fi sëñ Fallu jógee dana leen rabbista jib waltu kammil maa naway tulada tuubaalati bi ka tub naa fii ka bun yaana ne ko bun yaana jooju lu tax sëñ bi jàmmu ko dane woon tabax ga ak tabax ya tabax ya la waxoon tabax ya mooy bu jumaa ji noppee kon dem leen ngeen tabax seen kër kenn ku ne xam ne sëñ Fallu bi muy liggéey jumaa ji dafa joxoon ndigal ne nañu arrêté kenn bu kenn tabax te liggéeyub jumaa ji àggut am na kilifa yu doon jaxase sax dem ci kilifa naan sëñ Fallu daa bañ ngeen tabax waaye kilifa googu nee na bi mu ñëwee ci sëñ Fallu moom kenn waxu ko ne ko kii li muy li mu digle intérêt boppam nekku ji ndax fi mu ko fekk ay ñax ko wër mu toog ci lalu ab ab ab ab lalub dénk boo ko soon ba beree almet fi mu toog fépp mën naa jàpp kilifa googu nee na dafa xam ne Cheikh Mouhamadoul Fadal lii muy digle amu ci intérêt bëggu sëñ bii rek la bëggoon mu mat. loolu moo ko moo moo moo dindi xelam ci ki ko doon wax day jaxase rek looloo tax mu wax ko waaye bayit bii sëñ sëñ Fallou ko firil sëñ seexloo mii ak alaaji Mor Gueye ne leen li tax sëñ bi wax bun yaana jamoo ko mooy tabax ga ak tabaxee kon jumaa ji àgg na man ngeen a dem tabaxi seen kër ya kon te it ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo liggéey jumaa ji manees naa rafet njort ci ñoom ndax kenn mënu leen a tee dem àjjana sëñ Tuubaa ko wax wax fir li man banaw bina wala wax fere liman banaw bina ahar rafiq loolu la wax ca matlabu foo sëy ni yow yàlla na yàlla nga jéggal ñi nga xam ne dañoo jàpp ci tabax gii nga xam ne mooy tabax gii nga xam ne Sëñ Tuubaa amutoon lu du ak bëggam te yàlla def na alaaji moo Gueye ca dong yooyee la bokkoon kon manees naa rafet njortu baax ne ñaan yi ñu koy ñaan dadi ñaan mënta ñàkk ndax isid duhaa u yanfahu mayitil fil xubur wa yanfahu alxayya wa yujibul ujur euh, loolu rek moo ñu ñu ak digal li nga xam ne moo ñu ko digaloon waaye xel mën naa dal ci moom bu baax a baax a baax ñoom ndax ña nga ca kanamu kañ doon liggéeyal muy Cheikh Mahamadul Fadal ndax moom daan na wax ne Samba mënul kanamam man ginnaawam wax nañ ne itam alaaji Mor Gueye mii sëñ Fallou waxoon na ko ne ko bi mu koy jox dëkk bi muy xaw a kii ndax booba commerçant nekk ci xelam nee na ko lii ma lay digal bu ci ak yàq amoon duma ko def ndax man xam naa démb xam tey xam suba nee na sëñ Fallou wax na ko loolu xam naa démb xam tey xam suba nee na sëñ Fallou wax na ko loolu kon ñoo ngi ñaan mm, képp koo xam ne ni jàpp nga ci bis bi eh, ñoom soxna Sooda Gueye mi nga xam ne moo mag ci jigéen ñi ak mbooleem njabootuk alaaji Moor Gueye gi ñoo leen di sant bu baax ci taxawaay yi ak soxna Seyna bu Gueye ak soxna Moomi ak mbooleem seeni doom ak jarbaar yi ak sëñ Fallou Niang mi nga xam ne moo mag ci sët yi waaw mi ngi may eh, fàttali këyit yi nga xam ne ñoom jàngoon nañ ko ci ay kaamil sax 21 kaamil la woon waaye biñ ñëwee ñeenti kaamil yi ñu jàngaat fii ci suba ñoom moo tax mu mat 28 di xoroo fi Touba kon ñoo ngi leen di sant bu baax ndax loolu dara ëpp ko ci solo ndax wa arxamul lasiyaa ili lam waati raddu ila dunya maal hayaati loolu la Sëñ Tuubaa wax ca masalikul jinaan ña nga xam ne ñoo nekk barsàq muhammadiya dey soo leen laajoon la ngeen lan ngeen gën a bëgg ñoom nee nañ ñoom mooy dellu àdduna donte ab saala ñu jëf ko ci lu baax kon yéen ñi nga xam ne yéen la bàyyi ginnaaw ngeen bokk ci moom di ko jàngal ay ay kaamil ak mboolem way dawlu yaak mbokk ya ñoo ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di xamal ne loolu rek moo koy jariñ di sant mboolem jàngi kat yi xasida yi ñuy yëkkati ak ñuy yaloo ñëpp ak mboolem waxtaankat yi ak mboolem koo xam jàpp na ci bis bi ak sëñ Modou Guissé mii nga xam ne at mu jot nii la koy teewee ak mboolem waa presse bi di ci jiital waa Ndindy Actu nga xam ne seenub Serigne Falilou la ñaanal yàlla gërëm leen ak waa euh, commandant Thiam bi nga xam ne moo nekk jannatu Mahwa ñoo ngi ci jokkoo moom kii defee ko fii bëgg a ñëw danañ fexe yombal ba ba mu ñëw ñoo ngi leen di sant baax di leen ñaanal ak mbooleem bokk yi ak mboolem waa marché bi ak ñëpp rek ku lim da juum baatu fépp daal bàyyiwut fenn bàyyi baatum ñëpp it bàyyiwut kenn ñoo ngi wàcce foofu kaddu yi di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule bi barakati alhaaji Mouhamadul Fadal jaaraamaa sëñ Fallu jërëjëf sëñ Fallu jaaraamaa sëñ Fallu